ñu ngi lay maa ngi leen di fay. ñu ràññee la bu baax nag si li nga xamante mooy le petit écran tey jii sa teewaay fi nga xamante ne moom mooy si événement Papis euh, Niang bi si li nga xamante ne moo nekk événement wu ceebu jën. Mhm. waaw mais kontaan rek xam nga bu ñu waxee ceebu jën ca ngay sénégalaise c'est vraiment un plus donc ndam la patrimoine la dafay baax buñ ko defee ci spectacle bu mel nii xam naa ci kanam di ngeen gis euh, ni mu demee. Euh, dafay dafay honorer le Sénégal en fait il est temps que comme li may wax rek s'enraciner pour euh, pour pour avant de s'ouvrir donc euh, bu amee nit ki nga xam ne dafay delloo démba indi pour xam fan la ceebu jën jógee histoire u ceebu jën sénégalaise au vrai sens du terme lan la woon comment la doon solo naka la doon comporté woo du ñu def lu dul en tant que artiste appuyer ko appuyer ko gannaaw bu ñu ko félicité ci fit bi ah ci jom ji ci bëgg gëm boppam bëgg-bëgg bi mu bëgg Sénégal buñ ko félicité ba pare dañuy sant yàlla sant daal ni ñu bokkee ci soirée wu tey bi waaw. la nouvelle génération nga xamante ne tey jii nii muy sama man ak sama mborom dañoo fàtte démb faute bi fi parents yi la wara si ñun ñun ñoo topp li nga xamante ne moom mooy modernité bi. waa xam nga chérie euh, léegi xale yi sa genre yi ay xale ñoo leen jur euh, les mamans sont des jeunes. les papas aussi sont des jeunes. c'est la même génération c'est donc du nu du nu du nu joxoñ baaraamu tuuma mais dañuy demander à ce que la jeunesse ñu dem enrichir enrichir plutôt. enraciné wu parce que c'est très important gis nga boo amee racine li lay yóbbu du yomb mais boo amu racine lu ñëw yóbbu la waaw il faut juste faire des recherches ku ci nekk nga xam sa histoire famille d'abord xam aussi histoire u Sénégal comme ça foo dem booy waxtaanee Sénégal ñëpp dañ lay déglu. mais mel ne Salma tamit si loolu lay plongé. Euh, yaa ngi génn gaam de. si lay plongé un tout euh, lan série Salma waaw en fait série Salma c'est un peu autre chose mooy nit dañ lay delloo sa fi nga jógee. waaw c'est c'est c'est presque la même chose donc euh, je pense que Salma bi mu ngi def buzz que bu ñu rejeter en fait nit. parce que y a ce côté-là Salma bonul au vrai sens du terme mais peut-être fréquentation moo ko yóbbu ci li mu nekk mais nag boo boo xamatul fi nga jëm da ngay dellu fi nga jógee et je pense que mu ngi jéem a dellu fu mu jóge ndax tey nag Papis Niang di si fi nga xamante ni ñun foofu lañ foofu lañ jógee. on besoin je pense que série yi ak yooyu dañu war a gën a delloo si démb pour gën a valoriser parce que mënatuñu jaay tubaab bi dara sunu culture lañ leen mën a jaay nañ dem rek jaay leen dina baax incha allah. waaye une fois dans la semaine ngi koy jooy waaw mais dañoo bëgg a liggéey bi rafet rek dañoo bëgg a liggéey bi rafet rek mais canal bi ngeen di bàyyi nag ngeen jox ñu sa canal xam nga sa canal dafa xewi parce que ñun mën nañu diffuser chaque chaque jour mais nag dafay neex aussi ñu ñuy namm xam nga bu ñu lay gis chaque jour da ngay saturé ci image yi waaw. bàyyi ni bañ a la tête par semaine. en tout cas merci beaucoup. merci au plaisir. je vous souhaite merci beaucoup merci à vous